ñeent fukk ak benn gëmadi bani Israyil
mbokki déglukat yi salaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci liñ mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ba tey nu ngi gëstu ci tawret ni ngeen ko xamee tawret mooy téere bi jëkk ci mbindi yonent yi te ëmb juróomi xaaj ci xaaj bu jëkk bi ñu koy woowe njalben ga jàngoon nanu ci ni bàkkaar duggee ci àddina indaale fi coono ak dee ak alkande waaye gisoon nanu ci it ni yàlla rabate woon pexe ngir musal aadama ak askanam ci peeg bàkkaar di safara sudul fay mukk jàngoon nanu ni yàlla digee woon wàcce ab rammukat ngir mu deewal bàkkaarkat yi ngir yàlla mën leen a baal seeni bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem naka noonu téereb njaalbeen ga nettali woon nanu ni yàlla tànne ibrahima dig ko def ci moom xeet wu bees xeet woo xam ne ci la yonent yépp ak rammukatu àddina si naroona jaare ci ñaareelu téereb tawret di gàddaay ga gisoon nanu ci ni yàlla gorele sëti ibrahima di bànni israel ci seen buumuk njaam ca réewu misra jaarale ko ci loxoy musa yonentam noonu jàngoon nanu ni yàlla jiite woon bànni israel ci biir mànding ma ba indi leen ci tundu sinayi jottali leen fa ay ndigalam ak yoonu mbaaluk bàkkaar ci njàng mi nu weesu nag gisoon nanu ci ni yàlla sant musa ak bànni israel ñu defaral ko tàntu ndaje bu rafet te yéeme ngir mu mën a dëkk ci seen biir te gannaaw ba lépp pare niir wa daldi muur tàntu ndaje ba te ndamu aji sax ji fees tànt ba ci noonu nag yàlla doon na won bànni israel ni mu bëggoon a amee diggante bu neex ak ñoom waaye kenn mënu ko jege lu dul jaare ko ci deretu sarax ca rendkaayu tànt ba ni nu ko gise woon misaal yooyu yépp ay takkandeer lañu woon ci musalkatu àddina si waroon a ñëw tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaar ci ñetteelu xaajub tawret nag te ñu koy wax sarti giiru lewi yàlla xiiroon na musa mu bind ay sart yuy benn bennal ni bànni israel waroon a jébbale yàlla ay sarax yuy muur bàkkaar téere boobu bu xóot lool la te amoonu jotu gëstu ci lépp li mu ëmb soo gëstulee sa bopp ci téere boobu dinga ci gis ñaari baat yuy feeñ daanaka ñaari téeméeri yoon te ñaari baat yooyu dañuy tënk xibaaru téere bi yépp baat yu siiw yooyu ñooy sell ak deret lu tax ñaari baat yooyu faral di feeñ ci téere boobule ndaxte yàlla dafa bëgg ñépp xam ne ku sell la te bu deret tuuruwul mbaaluk bàkkaar du am solop ñetteelu xaajub tawret daal mooy won bànni israel ni ab bàkkaarkat bu taq sobe mënoona jege yàlla ju sell ji yàlla wone na bu leer ne kenn mënu ko woon a jege lu dul ci kaw deretu sarax sarax soo xam ne dafa doon misaal ramukat bu sell bi naroon a gane ci àddina deewal bàkkaarkat yi ngir fayal leen seen boru bàkkaar léegi nag ci jot gi nu dese tey nanu jàll ci ñeenteelu xaaj bi tawretu musa ëmb te ñu koy wax téereb lim ya téere bi danu ci jàng ni bànni israel dëkke woon ci taatu tundu sinaay daanaka benn at diirub at moomu yàlla doon na leen jàngal te xiir musa mu bind waxu yàlla cib téere di tawret bu sell bi nuy jàng tey waaye yàlla dogalul woon bànni israel dëkk ci màndungu sinaay ba faw looloo taxoon mu am bés yàlla jiite leen ñu jóg toxu teguwaat ci yoon wi wuti réew mu naat mi ñu leen digoon di réewum kanaan noonu mbind mi day nettali ne bés bi ñu waroon a toxoo sinaay niiru ndamu yàlla wa muuroon tàntum ndaje ba daldi yéeg tàmbali dox ci seen kanam noonu gis nanu ne aji sax ji moom ci boppam moo leen doon jiite nekk ci aw niir bu bëccëgee ngir won leen yoon wi bu guddee mu nekk ci biir jumu safara ngir leeral leen gannaaw loolu nag nu gis ni bani israel tukkee ba agsi ci digu réew mu tudd kanaan di réew mi yàlla digoon ibrahima ak askanam bu yàgg yàlla fàttewul li mu dige woon kolerek yàlla ak kàttanama taxoon bànni israel dem ba agsi ci diggu réewum kanaan mi ñuy wax tey palestine wala israel wante war ngeen xam ne réew moomu tuddoon kanaan waa dëkk baa nga ko feesoon ba tey waa kanaan yu am doole yooyo ña nga woon ca réew ma kon naka la ko bànni israel mënoon a moome nag lenn tontu rekk am yàlla dara tewul yàlla yàlla mi feeñu ibrahima dik ko ne réewum kanaan mii dinaa ko jox ñi soqi ko ci yow yàlla moomu moo fasoon yéene tas waa kanaan dénk réew mi sëti ibrahima di bànni israel te war nanu xam ne bàkkaari waa kanaan dañoo bare ba tax yàlla fasoon leen yéene tas jaarale ko ci loxoy bànni israel léegi nag nanu jàng ci ñeenteelu xaajub tawret ngir gis li xewoon ba bànni israel àgge ca diggu réewum kanaan ci saar fukk ak ñett mbind mi neena noonu aji sax ji ne musa yebalal ay ndaw ñu dem seeti réewum kanaan mi may jox bànni israel askan wu nekk nga yebal kenn ca njiit ya ca màndingu paraan kon la musa yónnee fukki ndaw ya ak ñaar ci ndigalu aji sax ji noonu ñu dem seeti réew ma ba ñu ca tegee ñeent fukki fan ndaw ya woññiku ci seen tukki ñu daldi ñëw ca kades ca màndigu paran fekk fa musa aarona ak bànni israel gépp ñu nettali leen lañu fa gis won leen meññee fi réew ma ñu ne musa dem nanu ca réew ma nga nu yebal te dëgg-dëgg réew la mu bari meew ak lem meññeef yaa ngi nii waaye nag ña fa dëkk am nañu doole dëkk ya yu rëy lañu te aar nañu leen ak i tabax te sax gis nanu fa ñu bokk ci xeetu ponkal mu tudd anak kaleb kenn ca ndaw ya seeti woon réew ma noppiloo mbooloo ma doon xultu musa neleen nanu dem nanu yéeg nangu réew mi wóor na ne dinanu ko mën a noot waaye nit ñi àndoon nag moom ne ko mënunoo song waa réew moomu ndaxte ñoonu ëpp doole noonu ñu tàmbali di fen di seede yu bon ci réew mi ñu seeti woon ci kanamu bànni israel naan réew mi ñu seeti dafay lor ña fa dëkk nit ñenu fa gis dañu am jëmm gis nanu fa ay ponkal maanaam askanu anak wi soq ko ci xeetu ponkal yi nu ngi meloon ni ay soccant ci sunu xalaat te ñoom it noonu la ñu ni gise woon noonu mbooloo ma riirandoo yuuxu fanaane jooy bànni israel gépp xultu musa ak aarona ñoom ñépp ñu ngi naan leen cëy sunu deewoon ca réewu misra mbaa nu dee ca màndig ma lu tax aji sax ji dinu yóbbu ci réew moomu ñu nu reye ak jaasi dinañu jàpp sunuy doom ak sunuy jabar waaw ndax dellu misra gënul woon ci nun kenn ku nekk ngi naan sa moroom nanu fal njiit te dellu misira musa ak aarona daldi daanu dëpp seen jë ci suuf ci kanamu mbooloom bànni israel mépp yosuwe doomu nun ak kaleb doomu yefunne ñi bokkoon ca ña seeti woon réew ma xotti seen yére ndax naqar ñu ne bànni israel gépp réew mënu dugg doon ko seet mu baaxa baax la bu aji sax ji àndee ak nun dinanu yóbbu ca réew moomu bare meew ak lem jox nu ko bu leen déggadil aji sax ji bu leen ragal niti réew mooma doyu ñunu sax ab galaxndiku seen yàlla yi leen daan wattu gedd nañu leen waaye nun aji sax jaa ngi ànd ak nun bu leen leen ragal wante mbooloo mépp ngi leen doon waaja sànni ay xeer ngir rey leen noonu leeruk ndamu aji sax ji feeñu bani israel ca tàntu ndaje ba aji sax ji ne musa ba kañ lama mbooloo mi di bañ ba kañ lamay bañ a gëm gannaaw firnde yi ma def yépp ci seen kanam nanu taxaw fii tuuti ndax dégg ngeen ni bànni israel moye woon te tooñ yàlla ndax gis ngeen seen ngëmadi ndax seetlu ngeen ni ñu tege woon yàlla kuy tebbi ay waxam waaw ci bis boobu bànni israel defoon nañu bàkkaar bu rëy ndaxte gëmuñu li leen yàlla digoon ci mbirum réewum kanaan gëmuñu li yàlla digoon seen maam yonent yàlla ibrahima dañu meloon ni ñu bare ci jamonoy tey ji ñuy wax naan gëm naa yàlla ak yonent yi waaye ci dëgg-dëgg gëmuñu yàlla te gëmuñu yonent yi ndaxte gëmuñu li yàlla wax jaare la ko ci ay yonentam ci mbind mu sell mi léegi nag nanu jëm kanam ci nettali bi noonu aji sax ji ne musa ak aarona ba kañ la mbooloo mu bon mii di xultu dégg naa xultu yu bànni israel yi ñuy jëmale ci man kon nag nee leen aji sax ji wax na ne giñ naa ne ndegam dëgg la ne maa ngi dund dinaa leen def li ngeen wax ci mànding mii la seeni néew di des yéen ñi ñu lim ci li ko dale ci ñi am ñaar fukki at yéen ñépp ñi ma doon diingal du ngeen dugg mukk ca réew ma ma giñoon ne dingeen fa dëkk yéen ñépp ba mu des kaleb ak yosuwe waaye nag seen doom yi ngeen ne dinañu leen jàpp dinaa leen fa yóbbu dinañu xami réew mi ngeen gedd waaye yéen seeni néew dinañu des ci mànding mi man aji sax ji maay wax te wóor na ma ne noonu laay jëfe ak mbooloom bon moomu mànkoo di ma diingat ñoom ñépp ci mànding mii lañuy mujj foofa lañuy deewe waaye ña muusa yabaloon ñu seeti réew ma ba ñu dellusee doon fen di wax lu ñaaw ci mbirum réew mi ba xiirtal mbooloo mépp ba ñuy xultu musa ñooña fenoon ci mbirum réew mi aji sax ji wàccee ci ñoom jàngoro ju bon ñu dee deegu gaaw yosuwe ak kaleb ña gëmoon kàddug yàlla ñoom rekk rëcc ca ña demoon seeti réew ma noonu gis nanu ni bànni israel bañe woon a gëm yàlla aji sax ji moom mi leen jot ci loxoy firawna yóbbu leen ba diggu réewum kanam lan la yàlla defoon nag ak ñi gëmul woon kàddoom dafa leen daan ñu dee ca mànding ma kon nag gis nanu ne bànni israel jotuñu dugg ci barkeb yàlla ndax seen gëmadi mbokk yi ci lu wér bañ a gëm kàddug yàlla musiba mu rëy rëy la ndaxte yàlla dina mbugal képp ku ko bañ a gëm ndaxte képp ku xeeb te fonka di li yàlla wax ci kàddoom gu sell gi mu ngi koy teg fenkat te du mën a bokk ci nguuram gudul jeex gi waaye it yàlla bëggul kenn alku wante ñépp gëm xebaar bu baax bi jëm ci yoonu mucc wi mu tëral looloo tax mu nuy artu ci kàddoom naan bu ngeen déggee tey ji baatub yàlla bi bu leen dëgër bopp ni seen maam defoon ca mànding ma keroog ba ñu dëddoo yàlla di ko diingat mbokk yi wattu leen ba kenn ci yéen bañ a am xol bu bon te gëmadi bay dëddu yàlla ji dund mbokki déglukat yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dinanu gis ni ñépp ñi bañoon a gëm yàlla sànkoo woon ca màndig ma ni ko yàlla giñe woon waaye su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbir mi wax naan mbokk yi wattu leen ba kenn ci yéen bañ a am xol bu bon te gëmadi bay dëddu yàlla ji dund